commission sociale bu Touba ca kanam ci recensement yi ñu doon amal ci weeru koor gi ci yenn quartier yi nga xam ne ñoo nekkee ci Touba ngir jàppale leen ci dundu loolee lañ nemmeeku génn kër goo xam ne ña fa nekkoon seenu dëkkuwaay jéggi woon na dayoo melokaanu kër gi ak na nga xam ne noonu lañ ci dëkkee mu yéeme woon lool loole ñi nga xam ne ñoo di waa commission sociale bu Touba ca kanam ci njiitalul Serigne Mourtada Abdoul Fattah ak mbooleem ñi mu àndal ci liggéey bi jël engagement ne daañu ko ko tabaxal ginnaaw loolee ci lañ ci def ay jéego ba ay mbokk taalibe yu bëree bëri barkeelu ci ba liggéey bi door na ba sori. liggéey bi moom li ko sabablu woon mooy dañoo ñëwoon ci recensement koor gi nga xam ne moom lañ moom lañ yàgg def ci bu weeru koor bu jot bu jotee. Ah, ñu ànd soon nag sëñ kilifa sëñ Motula Mbacke mu sëñ Abdou Fatah yàlla defoon ñëw fii ci Tawfekh Bousso biñ fi ñëwee ñu fekk fa dëkkuwaay yoo xam ne ni wax dëgg fa yàlla dëkkuwaay yu yu daw yaram la Euh, ci biir loolu nag ci lañ jëlee woon suñu téléphone ne nañ ko nañ ko filmer bañ ko filmer ñu dugal ko ci commission sociale lañ ñëwoon gis ko moom mu toog ci garab gi ñëw fekk kook njaboot gi wax dëgg fa yàlla lool ak naaju ni mu tàngee woon ñu laaj ko fan nga dëkk sëñ bi sax moo ko doon intéressé bi ñu jógee nekk euh, nekkin moom la nekkee day waar lool ci biir loolu nag ci lañ xool ne war nañ ko mën a defaral jël vidéo partagé nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak nekk ci bitim réew kenn ku ne commencé cee dugal sa xaalis bi mel ne mel nii waaw ah, def nañ benn bu pare ak bii nga xam ne moom lañ tàmbali te xam naa ne fekk euh, deux jours trois jours bu soob yàlla dina pare néeg bu defar bu ne laal defal nañ ko benn douche boo xam ne moo nekk ci gi nga xam ne nag defal nañ ko soxna si nga xam ne borom këram dafa génn àddina mu nekk fekk njabootam nekk na lool rafetlu na ko bu baax ndax xaarul woon ne dana am kuréel goo xam ne dana jóg ba liggéeyal ko këram gilee wax dëgg yàlla fu mu jëlee de wax dëgg yàlla ñun dañ cee am kontaan bu baax parce que sonnoon nañ fi trop sax ci koor gi ci koor sëñ bi ñëw na fi ak ay équipe am son metti woon na trop wax dëgg yàlla bañ fi ñëwee am nañ ci kontaan bu baax a baax a baax ñun daal amuñu daal amuñu la Touba ca kanam daal moom amuñu leen leen loo xam man mën leen kaa fayee daal amuñu ko wax dëgg yàlla man moom fii fii ñu ma jëlee moom maag yàlla rek a xam wax dëgg yàlla metti na trop nga fii sama dëkkuwaay bi ma fi nekk sama ñaari doom ak sama rakk bu jigéen xam nga ne metti na kon nag tey bu sëñ Moutalla ñëwee ak ay équipe ak bépp taalibe bu nekk ci te ci rajo àdduna bi yëpp jàpp si dama ci am kontaan bu baax wax dëgg yàlla amuñu seen fay man Touba ca ma dama dama yàggoon di ko rêvé ndax dama dama daan romb gis ñuy defal nit ñi ju baax maanaam ay waay man ñii ñii kañ la yàlla def ma taseeg ñii bañ génne ma ci tolof tolof fii. far yàlla def biir koor bañ fi ñëw ci koor gi yëguma ko sax dama daf fekk sax ma tëdd feebar damaa dégg seen équipe bi ñuy wax ci laa tooyalee sama rob bi ma sol tey ak benn mbal fa bu tooyal ko muuru génn tombe ci tombe ci loolu te ñu jël soxna ab sa seen mi bañ jëlee soxna Absa Sène ba pare ñun ma yow soxna si foo dëkk sëñ Moutala Mbacke na ma foo dëkk ma ne ko fii mun ma yow kon <laughs> yow fii ngay fii ngay fanaan ma ne ko fii da lay fanaan sama ñaar doom ndax sama borom kër dafa dafa dafa làqu maak samay doom ñoo fi nekk sëñ bi dugg ba si biir néeg bi xool néeg bi yëpp xool na ko mun ma yow lii lii ngay tëdd ma ne ko lii sax de nekkul lal muul laa jël ma di ko ci def fekkoon na amoon ay ñax yoo xam ne jotoon na kii yu wow ma jël ko jiital ko si biir jël sànke teg si am benn suñ benn dëkkandoo ba may benn dagg tomate la ma tegoon ko ci ne nekk fi ak samay Serigne Mourtada mi nga xam ne moo jiite commission sociale bu Touba ca kanam ñëwoon ànd ak yeneen kilifa ñu doon nemmeeku liggéey bi nga xam ne moom la ñuy defal soxna si fan la toll waaye mu bu baax a baax mboolem taalib yi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bile. Euh, fële la njëkkoon a tàmbalee moom yàlla dogal na sori na ba xam naa suba incha allah dana ñëw péntri ko fii tamit tey jii ñu ngi ci ñi fi nekk ñëpp li fi nekk lépp dañu ko jaayante suuf see démb am na camion bu ko fi indi bi mu agsee la la la borom laaj ñu leeral ko li fi nekk mu far jaayante ne joxe na ko addiye yi nga xam ne ñoo fiy liggéey itam yëpp kenn lañ fa fayu dara ñoom ñëpp dañoo walanteeru ñëw fa yéene def xidma tuur seenu ñàq fii waaye def ko ngi jëm Sëñ Tuubaa muy lu am solo sëñ Xaarim Dieng mii nga xam ne ni moom laa dendal ci sama wet nag ñu ngi sant commission sociale bépp waaye ñu ngi koy beral ak cantuk boppam ndax euh, mbooleem commission yëpp maa nga ca waaye fii ban tàmbalee ba léegi mën naa wax ne euh, waxtu moo fi ñëwee ñoo fi ànd te am na ñëw yoo xam ne sax ñëw na fi te te man teewuma fi di sant waa diaspora bi itam bu baax a baax a baax am na ñu nekk France ñu ngi ciy jàpp am na ñu nekk euh, Amérique ñu ngi ciy jàpp am na itam am mbooloo mu nekk itali am na ci ñoo xam ne si ab daayira lañ bokk tabax bee nga xam ne moom lañ njëkk a def ne feeñaloon nañ seen yéene bu baax a baax kon di ci woowaat boole bokki taalibe yëpp rek lii ab jaayante la ku mënoon a gàddu sax ci bërëb yi nga gàddu ak kër ne maay defar lépp itam kon danañu gënal ndax li ñu bëgg rek mooy situation yi ñu dund mu mu mu xaw a soppeeku. ba fii tamit gis ngeen ne naaj wi ni mu tàngee te gisoo amut fenn fu nit mën a toog pour kerlu fa kon day mel ne laaj laaj laaj laaj na reboisement Touba Ca Kanam nag mi ngi ciy jéem a dox ay tànk ngir indi fi ay garab yoo xam ne dana am ker loolu itam koo xam ne ah xam sa xam-xam màcc na ci te nga yor ko te mën koo jaayante tamit garab yoo fi indi bu soobee yàlla danañ ko fi mën a jëmbat fexe ba ñoom ñu koy toppatoo ngir fii am ay ker méngoog daal bërëb yi nga xam ne ni ñun ñi fa lañ bawoo ñu mu méngoog ñoom bu fekkee ne mënu ko mënta mel ne moom tamit mu xaw koo jege ndax lu néew néew moom nit ki war naa am fu muy fatoo ak foo xam ne ni bu bëggee suturloo mën faa suturloo te bërëb bi gis ni ngeen ko gisee rek kon daal ñu ngi ciy woo bokki taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn di sant ñi nga xam ne ñoo jot a def seen loxo. kër gi nga xam ne nag moom la commission sociale bu Touba ca kanam liggéeyal soxna si mboolem maçon yi nga xam ne ñoo nekkoon ci chantier bi dañ cee liggéey ngir yàlla fayuñ leen benn dërëm. ñi nga xamee ne ñu ngi nuy gis waa nu ñuy dégg nan xam ne kat fii dañ fiy liggéeyal Serigne Touba te it kenn ku ne war na la te jàpp na lii nga xam ne waa Touba ci kanam ñu ngi koy def ñun maçon yi kenn war nu cee jiitu kon nag ñoo ngi woo ñëpp rek képp koo xam ne daal moom sa yaa ngi yëngu ci maçon daal ñu ngi lay tàllal loxo bu baax di la ñaanal nag nga nga nga yëg si fi liggéeyal ci ngir jëmi Serigne Touba loolu daal ñu ngi koy sàkku ci bépp maçon boo xam ne nii yaa ngi dégg suñu kàddu daal ñu ngi la koy sàkku baax a baax commission sociale bu Touba ca kanam nii rek la koy amalee ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba muy taxawu mbooleem ñi nga xam ne seen loxo jotul seeni ginnaaw ne at mu jot dana jébbal ñi nga xam ne ñoo koy yittewoo ak dund ay yére loole da koy amal ba ci li nga xam ne moom moo di koriteeg tabaski yi commission sociale bu tubaa ca kanam liggéey bi ñu amal bokkul ak ñaar yi nga xam ne moom la taalibe joxe ci tubaa ca kanam lii commission sociale bi di def ay jaayante lay doon